أين على كل وراء خليفة القديم دون الله وحبيبي وحبيب الله وحب أهل الله لامب جتاس لامبر ما دم جنان suur mbër yaa ngi bàkku fii samaay ni ku mën na yeesal diina doon waaj tarxiya mbooloo mi tabax jumaaj déglu ma wax la yow atul juddoom ba saay nopp ama wasisil taarix ba daaru salaam

bëgg a ñëw Tuuba mal abraari bis ba mu ganee àdduna gis na booba leerag Rasuulullaahi sarba Tuuba maam Cerno yónni xonu ndooy ca yoor yoor moo koy yëgal Seex Bamba kooku mooy góor Bamba ni Cerno na ko wax borom saam maa ngi ci xalwa maay defar feeg saam sëriñ Mamar Jaara ku tudd xadwa faa tuddee ko boppam Bamba ñëw ñëw ni Mustafa ca moomaat la Bamba sañ ci ca weeru digg wa ñu naa ko kooba ñu naa ko Abdul Mustafa yaaram ba mooy doomi yaaram xajaban taaram mooy noo bulub xiyaari taayu mbàkke semal na ñey bëte bëte ki waa kokki waxlaat ma yaay ju baax ja faato mu tudd amin atoloolo moo yaatu ya sëcc la faatu woon fa tuuba Seex Bamba waram ko mu tabbi ca Momar la Bamba dem ganaaru siyaara seex siid ganaar yaay waaru ñu teg caayaat baay ba sañ ci baari dajale fay sixaari wal kibaari jébbal ko maam Cerno mu yor ko ko jàngal ko ba xëy defar ko Bamba am juróomi weer fa baari tubaab yi ko naa ko ndar ngay jaari mu dinkam bil Mustafa maam Cerno ni ko namat xalifa raw góorno keroog li tiiñul Mustafa fa diiwaan yanul ko yan ba rami soodaan keroog la dink Mustafa bi xërnu ni ko ramul maleen te fonk Cerno maam Cerno paate ko dalal baasina ba baag ba ñëw war ko qur'aan fa daaru fasaaka baana fa daaru ma naa ni la bindeeb ko seex bamba ca géej mooy kaamil ku weddi loola laaj ko abdoulaye nduur moo yóbbu woon kaamil ba Moustapha ay kaamil ba moo fi waraloon kamal nga ba njàmbe naa Moustapha Kamal nga ba ñibbise fa daarul manaan fukki at ak juróom laam di baawaan keroog la tàmbale muri fu baay ba ci kasasin ba sasin taarix ba bind ak liggéey ak jàng lañ daa boole laajal sëriñ Faadilu di xoole Bamba nga tarxiya fii Jolof Njaay fa daaru rahmaan ñi lee tolum njaay lu waay ngo ci dun yaa tey bamba baati sëriñ boo fi doy loo tey duggul tànki palaasub sëriñ Tuuba ko koy toogee fukki at ata lii du neenu neen na ngeen toppi ku naa maa bëggoon Cheikh Bamba teew konte léeg xanaa kaani doom ba tax mosilaam jil Mustafa ku mos dolli mooy suukar ko ko ŋàññit di ŋaañ fi nun ka koy buusu koy muusul ku muusu muusu Mustafa Cheikh Mustafa Cheikh Moussa Cheikh Moussa taalam baynta dootu fay ndaleeru Serigne Touba jafaleeri Moussa ndaxam taal bu yàlla yi la koy fayamul jóg leen xaj yëfam mu sawa danoo gëlamoon boobee ba taay waaye yeewu nan la seenum sappo yaa seyxu mustawa a woy ci asal yaa di suñu fi rek faafa mustawa te suñ boole jibbal nañ la suñ mbir yi defar noo defar ba nu sotti Cheikh fa tuuba suma tuuba suma tuuba man xad ata tuuba waxat laara mustawa jumaa ji sëriñ bamba digal réew mi doora dem nangoom gaa waral waa réew mi nangul na mustawa atum sa seeg jumaa ji ko nelaw na bur àggalew na lam ba julli mustawa balaa ngoon na jox entrepreneur bu njëkk ñëw awaas sa cey junneem boobeeb tubaab war na mustawa jumaa ji di toolub Sëriñ Bamba taw ba di jëwriñam ngay tobbi sa saag dooñ ya ji Mustafa ku bay añ ne Bamba togg jëbal ko Mustafa bileb xarnu seenu añ ma nga am di Mustafa nee naa leen aji bodaa ñuy woote kuy tan xam lu doo seeru Mustafa ku naa man liggéeyal naa sëriñ Bamba wàcc naa di naw ay jëfam yàlla na nitam toppi Mustafa xanaa moom yëgul iblis la mu jaamu tanaa ko taxoon igri maal koo fa Mustafa ba bur yàlla ne mboolem alaa kayis bi doo li Aadama Iblisa bañ safar noonu Mustafa jàmbaari islaam islaam nga gis gor muñ tayaat lewet yaakaari ñëpp nga ndax doo gàntu doo